mbokk jullit yi daarul xuraan ca Touba daawu marnaan ci njiital sëriñ Maktar Diène di daara ju nu sancoon ci atum 2006 mu nekkoon ci mbaaru seng ay ndongo yu bari mokkal fa alxuraanul karim daara jay dox boobaak léegi ak jéego yu am solo macha allah ak ñaanuk sëriñ Saliou Mbacke xaadimu rasul mu nekk léegi complexe scolaire franco arabe bu méngoog jamono état bu Sénégal reconnaître ko ñu fay jàngale alxuraanul karim arabe français yeneeni langue majalis yeneeni xeeti xam ak njàngale métier di formation professionnelle mi complexe scolaire franco-arabe Maam Awa Lo ci Daaru Maxnaan ci njiital Serigne Makhtar Diène am na fa cycle élémentaire moyen ak secondaire ndongo yi di fa génne ki lijaasay certificat d'études BFM ak baccalauréat di diplôme d'état daara ji li ko tax a jóg nag mooy jàngale xam-xam ni ko ku tedd ki Serigne Touba Serigne Mountakha Bassirou Mbacké bëggee complexe Maam Awa ca Daaru Marnaan taaru lool ànd ak bépp jumtukaay bu ndongo yi soxla ci seenaw nekkin ak jàng ay taax yu mucc ay bloc A ba ñu duppee Daaru Alim Kabir bloc bi Ndiéné Lagane bloc C bi Touba xel Malcom ak complexe scolaire franco-arabe Mam Awolo ci njiital Serigne Mactar Diène njàngale mu mucc ayib ak ay jàngalekat yu xereñ lool yéen waajuru ndongo yi su ngeen bëggalee seen njaboot njàng mu baax ak avenir bu mucc ayib jokkoo ak ñoom mbind mi na weeru août ubbiteg école bi weeru octobre incha allah ngir jokkoo gi 33 978 90 90 wala 33 978 90 91 77 256 12 wala Touba complexe scolaire franco-arabe Mam Awa ak njiit la Serigne Mactar Diène di ñaan xalifa bu tedd bi Serigne Mountakha Mbacké yàgg fi lool te ànd ak wér. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi. ñu dikkee leen kàddu yoo xam ni mi ngi bàyyikoo ci cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xalif général des Mourides mu jëm ci ndigal loo xam ne joxe na ko mu jëm ci ni ñu war a taxawoo wàllu njàngale mi ci biir dëkk bu tedd bi di Touba ak lu aju ci ni ñuy saytoo jàkka yi ak jumaa yi muy ndigal loo xam ne mi ngi ko joxe ci teewaayu Serigne Ahmadou yi mi nga xam ne mooy jiitu daayira Rawdu Rayaahin sëriñ Afia Bousso mi nga xam ne moo jiite daayira Muxaddamatul Xidma bu jumaa ju mag ji muy kàddu yu mu yëkkati ci bisub dibeer fukki fan ak juróom ci weeru gàmmu atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom ci ati gàddaay gi fii ci Touba Daaru Minan dëppoo benn fan ci weeru octobre atum 2023 bismillahi rahmaani rahim bokki taalibe yi bokki di njabooti sëriñ bi njaboot gi ñëpp jullit yëpp noo ngi yàlla na tey moom may nu ndaje mi ñu daje ko ma daje ko bokk yu baax yi nga xam ne diine ji rek mooy seen itte taalibe gi ak ak taalibe diine ji mooy seen it mooy seen ak ta ak taalibe ñoom loolu rek mooy seen liggéey na na na na diine ji gën nasoo na mu gën a doxe na mu gën a maase loolu mooy wàllu diine ji wàllu taalibe gi itam ala kulli xaalin il faut nit ñi ñu gën a xam sëriñ bi gën a gën a gën gën a xam aw doxinam waaw te te def ci sunu kattan yëpp sunu yitte yëpp sunu xel yëpp sunu kattan yëpp ñu def ko ci jéem a xam kan mooy sëriñ bi jéem a xam lan moo di aw doxinam waaw te te te nekk ci nag nekkal ko ci loolu mooy lii mooy li ci mooy mooy mooy mooy li am solo mooy li ci mooy yitte ji kon nag eh, képp koo xam ne eh, eh, dëkk bu sell bii sëriñ bi euh, sàkkul ko boppam digg mu boromam ba amee ko ni mu ko bëggee euh, moo dox ba agsi fii euh, kon képp koo xam ne da yàlla daa ci ñëw fi na nga xam ne dëkk bi dëkkum ndigal la te it bëgg nañ ñëpp maas ci benn doxin yi muy doxinu sëriñ bi loolu bëgg nañ ñëpp koo xam ne yàlla xëy na ci nga jëm ci dëkk bi rawat nga sax nga nga ne mën a jàngale diine ba di ko jàngale loolu lu mën a xew la ca jiitu mooy euh, nga nga nga jéem a xam kan muy sëriñ bi jéem a xam lan muy doxin bi boo ko defee euh, bu fekkee ne am njàngale moo la fi andi loola nga xam mu la ne faw euh, njàngal njàng fii liñ fi jàngale daal mooy jàngaleem sëriñ bi jàngaleem sëriñ bi nag eh, yóbbaale na lépp ndax moom aqida ashari moo fi nekk mazhabul maliki moo fi nekk tasawuf jund yi moo fi nekk eh, eh, boo boole yooyu yëpp delluwaat ci charia ak xaq bayiwul dara gannaaw waaw kon nag loolu moom waxuma la sax bàccu sëriñ bi ak ak digg ma boromam waaye saayir soosu rek dafa tënku dafa doy tënk tënku ci lépp ci soobu yoonu yàlla fas yéene ko jaamu na mu na mu gën a ko gën a le loolu kon euh, ginnaaw noonu la demee nag maa maa ngi joxe ndigal hmm, loo xam ne euh, euh, loo ci fas rek mooy ñëpp nu maase fas sax dàkk ci liggéeyal sëriñ bi jaamu sunu borom na mu gën a na gën a rafet waaw liggéeyal ko ci suñ lépp suñ lépp lu baax lu ñu def rek nu fasal ko ci dafa dafa fas ci liggéey fas yéene ko ci liggéeyal loolu mooy li nga xam ne moom laay moom laay joxe ndigal kon na ñëpp ñi nga xam ne noo bokk noo noo noo jëm si nañ fii ci Tuubaa de bëgg bëgg fee bëgg fee liggéeyal bëgg fee bëgg fee liggéey ci diine nañu xam ne eh, ci ci loolu amul nenn fañ koy mën a jaare furul ci jéem xam sëriñ bi jéem a jéem a jéem a xam doxinam eh, fas yéene caa nekk fas yéene caa nekk eh, ndax bàyyiwul dara gannaaw di di nu mu war na diine jëpp lu aju ci diine loolu mi ngi ci biir loolu lu aju ci taalu bi ci bu njëkk ca saxaabatu rasul ba léegi lépp mi ngi mi ngi mi ngi ci biir yoon wi kon nag yoon wi da wuti wutu fenn dara lépp sëñ fàggul nañu ko ah juwoon na ci boromam am nañ ko am nañ ko nan nan ko nan ko bëgge eh, kon eh, jaamu yàlla ak liggéey sëñ Tuubaa rek moo fi nekk te yàlla tax kon nag ñëpp xam ne ndigal li eh, dox doxin wenn la wenn rek la mën a doon waaw doxin bi rek benn bu moo xam ci njàng mi la jëm moo xam ci doxinu jàkk ji la jëm waaw kon doxin wi na benn rek la ma doon kon na ñë na ko na ko ñëpp xam lépp lu ci ku ku jógati bëgg bëgg bëgg bëgg lëgi surtout ci wàllu diine eh, ala ko laaj na nga na nga laaj yoon wa bañ wax la ko nga jaar ci yoon wa ñu digal la ko nga defee ko noonu loolu mooy ndigal li moo xam ci njàngale mi nag moo xam ci jàkk yi waaw mu xam ci jàkk yi waaw kon na ko na ko ñëpp xamee noonu te xam ne kat loolu mënut a ñàkk dana nu jaral lu ne nag loolu tegu loolu aw yoon ñun ñëpp nu maas ji dana nu jaral suñu suñ suñu bakkan waaw kon nag nguur gi nga ne moom dëgg la yàlla def ànd nu àndandoo gi fi nekk loolu itam ala kulli haal ñii bokk yu baax yi dox nañ lépp te yëgal nañ leen ko te juwoon nañ ci ñoom Eh, kon nag lu ci bëgg manqué itam daanaka ànd ngóor gi faj faj loolu na mu ko na nañ ko war a faje waaw na ko ñëpp xam ne noonu waaw lu ci bëgg a manqué rek danaa dana dana ànd ak dana ànd ak ñi ñi yàlla dogal ñu eh, nekkoon fi sëñ bi ba ba ba nokki bi alhamdulilah rabbil alamin sëñ bi am li mu bëgg eh, nu bokk fi nekk loolu kon. ndax euh, nañ xam ne lépp luñ ci bëgg a jaaxal nag daan ànd ak ñooñu faj loolu ak nun ko mën a faje rek loolu rek ko ñëpp xam na di gën a santaat bu baax suñu borom mi nu boole sëriñ bi di gëntaat sëriñ bi bu baax mi nga xam ne fàggul na lépp biir bi tey ëllëg lépp lu ñuy jëriñ tey ëllëg ci biir ci biti rek fàggul nañu ko alhamdulilahi rabbil alamin maa ngi leen di seeral googu cant suñu gën ko bokk ak yéen di leen sant yi tar seen taxawaay ndax di taxawaay da maa ngi wu yan bee diis rek yitte ji rëy waaye dara manqué def ngeen li ngeen leen war def lépp dara manqué wu ci kon nag li ñuy ñaan rek mooy suñu borom mi nga xam ne mooy def dindi mooy def ak dindi te telewul dara mu gën noo gàtt nag tawfiq sëñ Tuubaa mu gàtt nag tawfiq bi rek lépp dana yomb incha allah lépp dana marché lépp dana mel na dinañ ko bëgg bu ko defee nag loola mooy tax suñu xel gën a dal mu xam ne li sëñ bëgg noo ngi ci noo ngi ci gannaawam suñu lépp ak suñu lépp ginnaaw ndigal yu leer yooyu nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké joxe na ko mu jëm ci wàllu barabu jàngukaay yi ak jullikaay yi ci dëkk bu tedd bii di Touba Serigne Ahmadou Badawi mi nga xam ne moo jiite daayiratu Rawdu Rayaahin dikkaat na ci nan la ñu woon liggéey bi yan ñooy kuréel yi nga xam ne ñoo ci doon liggéey ak yoon yi nga xamante ni képp koo xam ne bëgg ngaa saytu barab yooyu muy barabu jàngukaay wala jàkk ak juma ci dëkk bi ci yoon woowee ngay jaar ñu déglu ay kàddu. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu yëkkati suñu kàddu ñu tàmbalee ci ziar ak ak ñaan ñu sunu biir xol ma ci ko Cheikh Mouhamadul Muntaqa ñaan sunu borom bàyyil na ko fi tamay ko wér ba yéeneem ji mu am ci toolub sëriñ bi ci lislaam mu yeggale ko fu mu ko bëgg a yeggale di ko siyaare bu baax a baax ci guddi gu weer guddi gii ñu guddi sëriñ bi di laylatu mawlidin nabi ku koy màggal rek sëriñ bi nga koy nga koy defle te moo wax ne defoon naa ko ca ama achachin boobaak léegi téeméeri at ak ñeent fukki at ak juróom la axyeytu mawlidi nabi min achachin wa qaada lii fawqal munaa fii hamchachi kon boobaak léegi mat na téeméeri at ak juróom fukk nu fanaane ko fii ci wetu ku tedd ki di jàngi daam yi nga xam ne siiratu sallallahu alayhi wa sallam lépp nafar nañ ko keroog ci guddi gi mboolem tagg yi nga xam ne nit mas na ko tagg sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. yi sëriñ bi dafa ko kawe te jàng nañ ko fi gépp julli guñ mas a julli ci moom fanaane nañ ko fi mm-hmm. waaye mboolem ñaan yi nga xam ne ku baax ñaan na ko jëmee ko ci bindee fi mm-hmm. ñaan nañ ko fi te gëm nañ ne wóor nañu ne sunu borom nangu na ko ndax dundal dundal guddi yonent bi salaatam ci wetu Cheikhuna al Xadim radiyallahu anhu amiin rek lañ def tifli ñaan jóge ci Mbakke waaye fas nañ ci nga yàgg fi taan rek wér ngi la ci siyaare bu baax a baax a baax a baax di am mbégte lool ci jataay bii nga xam ne am nañ ko tey ci sa ndigal muy ñaari ndigal yoo xam ne yëpp danga mu ko jox te benn mënu ci ñàkk muy li jëm ci jàkka yi ndax ku ne xam na ne Tuubaa moom daara la wajal bu yooti kullaha masajida yaa naa fi yéen man laa yekoonu sajida kon Tuubaa fépp jàkka la waaye nag loolu dafa dafa dafa firndewu lool biir ba koñ boo dox foo taxaw fekk fa jàkk ak jubaa waaye lislaam dafa nosu leen lu nekk dañ ko war a nos moo nga joxe ndigal nag ngir ñu nos ko seet fu nekk bala ñoo fu ñu tabax itam diggante ba masaafa bi nga xam ne lislaam da ko wax ci diggante ñaari jumaa ñu sàmmonteeg moom waaye xutab yañ fay def mu jëm ci mbooloo yi moom itam war dëppoo ak dëkk bi ak njàngalem sëriñ bi waaye nañ ko fay defee itam lépp war a tënku ci ndigal ndax Tuubaa dëkkum ndigal la te yaa yor ndigal li loolu itam doon loo xam ne ñu boole ñu ko ak mbooloo mii di muqaddamatul xidma ñu am tawféex yor ne barab bu màgg bii di jumaay Cheikhul Khadim ji nga xam ne mooy yaakaar yaakaari di yëpp ñu dox ndigal si ñaa fii Bousso ak njabootu Moukhaddamatoul Khidma ñu ànd liggéey boobu bii ñu tase woon fi tey fas yéene soobu ci ndigal loolu jëfe ko bi ci dolli ko it mooy sa liggéey bu mag bi bi nga ko yëkkateeg léegi ñëpp dañoo fax jëm ci mel ne nag njàng ak jàngale moom daa doon moo xewetu jamono fii mu ne ñi saytu wàllu googu wax nañ ne boobaak léegi lu mat ñeenti téeméeri école gis nañ ko fii ci dëkk bi te lu nosuwut rek day daal di am neneen nu mu tudd loolu itam bi ñuy waajal sa liggéey bi nag waajtaay wi dañ ne woon ni nga ko waxee woon rek lu tàmbale ci kii kii dal baasin ba ci njobaxtan la ñu kon ñu ne bàyyi woo menn njàng bàyyi woo kenn ku bëgg a jàng bàyyi woo lenn lu am njëriñ lu ñu war a jàng mu amoon nag ay ay kuréel ñu koy wax ay commission yu mat fukk ak juróom bu si ne am lu mu féetewoo woon alhamdulilah rabbil alamin yëpp noppi nañ seenub liggéey bi tax ñu tase fii tey nag mooy bi nga xam ne ñoo waroon a nos nag njàng mi nekk ci dëkk bi ak mi fi war a ñëwaat ëllëg mboolem da jàngukaay yi fi nekkoon yëpp ñu tënk leen ñu am yoon woo xam ne ci la ñu dox wu dëppoo ak sa ndigal dëppoo dëkk bi te loole rek mooy lislaam mooy njàngalem Cheikhul Khadim radiyallahu anhu waaye bu ci nekk nag ñu xool lañ fa doon jàng saytu ko la ca manqué woon te mënu caa ñàkk ñu dugal ko ca te lépp mooy njàngalem lislaam ak atarbiyel islamiya atarbiyel muridiya te loolu ñëpp ko soxla ñi nga xam ne ñoo yor njàng mi itam ñoom si seen bopp xamoon nañ ne am na lu si manqué nangu nañ ko itam am na si ñu wax ne nag jàpp nañ ne lu koy jubanti fii lay jóge loolu nag moo tax waajtaay wi compuñu ko dañ ko jox àqam ba mat sëkk lenn lu ci lañ jàpp ne luñ ca war a def la def nañ ko sa ñu bëgg nag sa ndigal ci sa ndigal lii nga joxe mboolem ñi yore jàngukaay ci dëkk bi ñu tënku si loola te loola day waral ku fi jànge da jàng li ñuy jàng feneen ci biir réew mi waaye da nga am loo xam ne amul feneen ci biir réew mi loo xam ne te mënta lu mënta ñàkk la loolu kon mooy solas daje bi nu fa yéene nag daal di soobu ci liggéey bi li ci aju ci wàllu li ñuy tuddee école it dañ ko ànd ak ñi nga xam ne ñoo yor wàllu njàng moomu ci réew mi waxtaan ceeg ñoom tëral ko ci anam goo xam ne ñoom rafetlu nañ ko wax ne itam dañuy ànd ak nun ci doxin wa bu ko defee luñ ca war a jubbanti ñu jubbantiku ci lu ca doon loo xam ne luñ war a saafara la ñu ànd kook ñoom saafara bala fee kenn ubbeetib jàngukaay itam day am ndigal këyit woowu nag lay yóbbu ca Mbàkke fa li ñu ca ñu yor njàng ma fa ñu li ñu tudde EF ñoom ñu soog saytu ñoom itam ba mën koo jox ndigal nga xam ne ëllëg ku fi jàng bu amee diplôme dana ko mën a jariñoo ci réew mi dana ko mën a jariñoo ci bitim réew loolu daal Mbàkke ci mooy mooy ko jotaay bi di àndaan nag di ñaan rek nga nga yàgg fi te ànd ko gër di sant bu baax di la gërëm ci tawfeex ji nga ñu defal ci liggéeyal sëriñ bi ndax kat wax nañ ne mag ñu bari dañ daan dàkk bëggug sëriñ bi waaye ñun ñu am tawfeex yi nag